Guel Info asalaamaaleykum waa diwaanu Thiès ñu ngi nuyu ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi euh, tey ñu ngeek euh, monsieur Alpha Ndiaye di doomu dëkk Ndiédiène doon fi tamit euh, notable mom la dalal monsieur Alpha Ndiaye parole bàyyi moom kon asalaamaaleykum waa Ndiédiène asalaamaaleykum waa commune bu Ndiédiène asalaamaaleykum seen site bi di

ah boo mënee jàng te amuloo ku la taxaw yi tamit du sotti parce que njëriñ gii je vous assure que paa yi ngay gis fi yëpp c'est des cadres cadres yoo xam ne ñu ngi am seen COP ak seen entrée en mais yorin boo xam ne yorin boo xam ne baaxul moom moo tax ñoom ñëpp di échec rek laa leen bu wekk yi ñu dëkkoon ndar bu ndaw bëgg a jàngee ji lycée Wally Jojo Ndiaye pourtant li li lycée Gaston Berger loolu la tuddoon xale bu ndaw bu am six ans dugg école am CEP entré en sixième au moins à quatorze ans bëgg a di xëyee ndar bu ndaw di jàngee ji lycée Gaston Berger dafa métti midi nga bëgg a ñëw wàcc si ngoon jot nga bëgg a ñibbiwaat dafa métti woon moo taxoon pas yi ngay gis fi yëpp c'est des cadres leen échec ñu ñëpp bon bi ma dem à l'âge pour mën a dem armée alors ci laa incorporé wu dem am fa ay jaar-jaar am fa ay jaar-jaar concours gendarmerie ma admis ko concours police ma admis ko concours douane yëpp ma mais nag gendarmerie comme j'étais gendarme auxiliaire alors loolu moo tax ma dugg incorporé gendarmerie dem naa fa nag ba au grade supérieur suma hiérarchie di sous-officier tous les diplômes ba sous-officier ba adjudant servir naa fu nekk nag dans les brigades routières servir fii ci Sénégal mooy de l'escorte présidentielle escorte motorisée présidentielle Tu l'as devenu à test un fonctionnaire de l'ONU ñëw test pour le maintien de la paix Tu l'as admis à Naïti Haïti pour former les policiers haïtiens les PNH j'étais à l'école de police de en Haïti

mu doon lu ñu naqadi lool naqadi tamit euh, la population yow nga doon euh, militant parti APR mais ngeen am seen liste parallèle bon yenn kàddu ngay euh, teral ci kii daal. kàddu yi ma ciy tegaal mooy Ndiédiène na baax commune Ndiédiène doxul doxul parce que suñ amuñu maire maire bi fi nekk mën mënta yore commune commune dafa aaju loolu rëy bu bëri ba ma ñëw fii ànd ak moom ànd ak moom ci combat yu nekk dégg bu ñu gagné premier tour sax gagné wuñu mais nous sommes sortis deuxième deuxième tour ñu gagné alors léegi nag bi mu demee boo xam ne moom léegi gagné nañ biir rek moo fi pour lui daal man sama bopp mairie bi moo tax mu mu am ñoo xam ne ils étaient contre lui ñëw rallié wu ci parti bi xaajale ñu complètement te man itamit dafa am ma toll foo xam ne alors yéen ñi du ma ko nangu ci laa beru dem Babacar Diouf ñi xam ne investiroon nañ ko moom itam gisul boppam ci nii mu beru ma jàppale

def suñu liste bopp maanaam liste boobu noonu mooy liste parallèle bu nga xam ne Babacar Diouf mooy euh, Babacar Diouf mooy suñu tête de liste ah. mu ngi dem ak récépissé bu euh, Thierno Alassane Sall république des valeurs amoon nañ nag yeneen récépissé mm-hmm. amoon nañ trois récépissé ak bon quatre waaye boobu la ñu tànn parce que récépissé yi amoon yëpp dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar mënoo bokk nag ci Benno Bokk Yaakaar bëgg a jël foofa benn récépissé bëgg a xaajal sa bopp non tax mais nag maa ngi bëgg a yëgal ñëpp ne ñun APR la ñu bokk kanta ñoo bokk APR ñoo bokk ben kër waaye bokk ñu jël APR lañ tey de A à Z la ñuy liggéeyal mooy suñu ñu gis ne tamit njéejéen bari na loo xam ne comme yoon mooy infrastructure yu bari amu fi comme yéen a ngi ñu bëggoon ngeen teer appel aux autorités yi nga xam ne tey jii yéen a ngi wekku ci ñoom woo leen pour ñu jàppale ñu loolu moom mooy sa sacerdoce mooy mooy li ñu war mhm. développement Ndiédiène parce que Ndiédiène Ndiédiène laa dëkk rek même garage ñoo boo fa taxawee ne Ndiédiène laa jëm rek chauffeur yi sax dañ lay xas tellement que y' a rien ici rien du tout Macky Sall pare na yëpp programme am yëpp pare na xanaa kañ voies et moyens yi ngay jaar pour jëli ko mooy problème te loolu ku jàngul mënu ko matériel informatique yaa ngi nii mun nga dugg en contact ak beaucoup de partenaires tant pour tant bouger d'ici waaye nag boo boo mënta taal ordinateur fooy dem tout est numérique ah addina bi addina bi changé na dégg semaine dernière rek ak sumay relation Pape Demba bi tey woo na ma yendu kër film parce que moom daf na soxla ko rek ndee ngi soxla na la comme ni ñu soxlaa loolu la ñu suñu problème mooy un électrification rurale bu Ndiédi on a cinquante huit villages lu bëri bëri dix dix dix dix dix dix dix ak électrique wala mu néew ko dégg mais c' bu cuune la ñu am moo tax moo tax loolu yëpp du ñu dal mais boo demee Ndiaffate boo demee kii Kër Socé am nañ ba dugal ko biir Ndiaye te ñun suñu maire mënta def parce que il a des problèmes avec euh, kii ab bi de li mu yor moomu ko dañ ko ko dénk rek mu jox ko nit ñi boo demul jëli ko doo ci jot boo demul jëli ko doo ci jot yéen maire yi am fulaak fayda bëgg seen gox ñu ñoo dem jëli euh, yoon bi yoon bi yoon bi kay moom depuis mille neuf cent yoonu toujours ba Senghor ba bi ñëwee fii ba muy ñibbi nee na leen waa jéejéeg xam naa ne yoon bi seen tawat la waaye balaa ma fi ñëwati dinaa jaar ci goudron booba la fi géej Ablaye Wade ñëw na fi wax laa même chose Ablaye Wade fanaan na fii mom sax def na 12 ans yo xam ñewul ñëwul mais Abdou Diouf mom ñëw na ba Ndiédiène indi ko ba fi ci Escoffier n'est-ce pas Macky Sall yi tamit na fi étant dans l'opposition mais jusqu'à présent rien donc nak ñu ñoo war am suñu fula ak suñu fay et toutes les sensibilités politiques te ñëpp ngeen jóg surtout yéen gune parce que ñu jeexal nañ dem yéen a dess des waaw ngeen gën a góor fi ngeen teg seen tànk foofu la am ngeen moyens am ngeen xam-xam bi am ngeen yëpp waaw élection nag moom mu ngi noonu comme benn saison te kenn rek a ciy ku mu neex na laaj ku mu neex nga laaj na ñëpp laaj na ñëpp jóg liggéey wax a nit ñi expliquer leen nit ñi sax xam nañ ko ku nekk yaa ngi leen dugub rek nit ñi am na lu leen naqari trop trop trop trop trop suñu diwaan waaw Mm-hmm. yoon beeg courant bi moom. Mm-hmm. nit ñu am nañ ci lu leen naqari. dëgg la dëgg la ak euh, monsieur Alpha Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal. ñëpp nag. ku gañee mm-hmm. yàllaa ko xam yàlla na ko ko jox mu jig ko. ku ñu gañee yi tamit bu bàyyi sa loxo. continuer di liggéey. ku ñu gañee. demal uutiwaat boo amee moyen pour indi njëriñ indi ko. malgré que gañe wuloo waaw di leen yàlla lay yàlla jàppale. yàlla yóbbu fu ngeen bëgg a yegg mhm. ay gune ngeen yal na leen yàlla may alors fan yu gudd wér gu yaram may leen njaboot bu toog ba alors di leen euh, remplacer mhm. jërëjëf ñu ngi lay jaajëf kàddu yi rafet na lañ doon teertu yaa ngi woon direct si Ndiéme Infos monsieur Alpha Ndiaye